waaw xam nga ci suñu euh, culture balaa ngaa jël décision yoo xam ne ay décision yu rëy la foog nga diisoo sa baay yi foog nga diisoo ak ñi nga xam ne ñooy sa kilifa ñooy kilifa diine rawatina euh, xalif général moo tax balaa ma jël décision bi nga xam ne fas naa ko jël fas naa ko yéene jël euh, vendredi incha allah dama ñëwoon tàggu ko di ko koy expliquer expliquer lu tax ma nar a jóg euh, seet nag sàkku ay ñaanam ak euh, ni ma ko gisee maa ngi ciy sant yàlla nag te incha allah ni ma ko waxee woon sànq. àjjuma sobee yàlla dans la l'après-midi am na déclaration bu ma war a def. lu war a jëm wàllu tolluwaayu réew mi la politique la ak élection yi nar a hmm. réew mi yow jàngat waaw jafe-jafe yi bëri na waaye defe naa bu ñëpp toogee ci te waxtaan ci. defe naa mën nañu am bunt yoo xam ne Sénégal dana jëm kanam. sànq wax nga ba jàmm jàmmi Casamance tey tolluwaay waaw xam naa nag ne euh, jafe-jafe yi wàññi na defe naa ni gouvernement bii nag ci wàll jooju def na defe naa li mu waroon a def kon nag ñun ñëpp ñoo ci war a jàpp pour jàmm ji nga xam ne mooy li ñuy wax paix définitive maanaam jàmm ji nga xam ne mooy mooy li nga xam ne ñëpp ñu ngi koy xaar. ñu am ko te incha allah xam naa ne suñu mag yi xalif général ak yeneen bu ñu ñaanee suñu borom pour jàmm ji dellu si wóor na ma ne dina dellu si. waaw loolu di ko xam bu àjjuma incha allah.